man j'aime le débat contradictoire mm, parce que loolu mooy l'essence même de la démocratie le premier ministre Ousmane Sonko il aime le débat contradictoire parce que c'est l'essence de la démocratie mm. mais nit ñi dañuy fàtte c'est que yéen on dirait que ay Serigne Fatima ak Omar ak certaines personnes on dirait que dañuy lekk seen ginaar ba suur naan seen jus du ñu seetaan les plénières maanaam xamuñu lu xew assemblée nationale yow fee bi ngay décrire nii Fatima xaaral fait bi ngay décrier nii nga ne député Yewwi ils n'en ont pas parlé si Serigne ils en ont parlé à plusieurs reprises. def ay wax xaaral ma expliqué la. ci règlement intérieur laa la xam nga dañoo non xaaral da nga ne dañoo travailler sur un faux règlement intérieur. oui te ils pas bougé d'un iota. si ils ont fait des annonces. ils ont décrié. dama lay wax xam nga question présidentielle déedéet waxuma déedéet waxuma li waxu leen ko de. waaw man du ma toog fépp. da wax la même hargne non non déedéet waxuma la même hargne dama dama ni dama ni dama ni li ma wax se c'est la clair dama ni certes wax ngeen ci dénoncé ngeen ci mm-hmm. mais après actes yi dañu gis ne da ngeen accompagner faux règlement intérieur. boobu si actes moom laa la jox exemple ne la. mais dama la moom laa la jox. moom moom laa la moom laa la dinaa la ci tontu parce que c'est diamétralement opposé <laughs> waaw buy ga la ak daqaar ga Fatima. Ah, gis ma expliqué la naa la expliqué dama lay wax Serigne. mais yow wax naa la jox naa la sànq exemple porte réserve teewul match bi am teewul jour bi fubal contrôle contrôle à posteriori la ñuy def mais arbitre bi ak euh, commissaire match bi munul tere ñu porter réserve ci jour ñu ne ko doo fubal parle de constitution. Ah non dama lay yem c'est parle de constitution c'est une métaphore c'est juste un <laughs> exemple. non on parle de constitution c'est pas la constitution man je parle du règlement intérieur. li nga wax nii c'est pas la constitution c'est le règlement intérieur. non non non non la la constitution n'a rien à voir avec le règlement ah, intérieur je suis désolé non non non non non non déglu ma wax la. déglu ma li nga wax les dispositions là les dispositions citant le premier ministre. Mm-hmm. Euh, euh, euh, la loi organique moo ko définir xam nga constitution bi fan la yem article cinquante cinq. après sa nomination le premier ministre fait sa déclaration de politique générale après mun na am euh, euh motion de censure ak question de confiance constitution Sénégal foofu la yem point final point point final point final mm-hmm. yaa ngi dégg foofu la yem quand on met un point final la phrase elle est terminée donc loi organique mooy déterminer le règlement intérieur Fatima dinaa ñëw ci loi organique le le ministre des finances c'est diamétralement opposé mm. Guy Gala ak li nga wax nii c'est le règlement intérieur le règlement intérieur ñaa la ko bind ce sont les parlementaires parce qu'ils ont un pouvoir souverain le pouvoir exécutif dafa nekk fii warul empiéter sur le pouvoir législatif ni sur le pouvoir judiciaire la déclaration du premier ministre quand même on parle français ou bien on parle saraxule le premier ministre s'est exprimé dans la langue de Molière quand même Fatima français facile français facile même élève de CM2 na ko lire dafa ne dafa ne li mu wax li mu wax mooy que les parlementaires waxu les parlementaires de Benno que les députés euh, jóge ci illégalité dugg ci légalité parce que moom du parce que le un ancien premier ministre est allé faire dans l'illégalité qu'il fera la même chose mais loolu tous les Sénégalais épris de justice dañ ko war a applaudir parce que daf leen wax ne mais moo moo tax député yi def nañ fi ay euh, euh, ay ay motion préjudicielle ci ay documents yu bëree bëri mais faale wuñu leen parce qu'on est minoritaire à l'Assemblée nationale ñu rek comme li nga wax en 24 heures ñu géré ko def def woote rapidement. affaire bi à eux de le faire Fatima. déglu ma expliquer la dama lay wax la la la contradiction non dégg non la contradiction euh, qui résulte de cette affaire la xam nga se quoi. les députés de Benno Tas Yaakaaru Sénégal ont tenu une conférence de presse débité des âneries des inepties loo xam ne basé wuñ ko ni sur la constitution ni sur les lois organiques ni sur le règlement intérieur le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar Abdou Mbow wax na lépp ba mu des ne ñoom ñoo dindi woon les dispositions citant le premier ministre wax na lépp attaqué na le premier ministre c'est la démocratie ah amul benn problème on peut attaquer le premier ministre le président les projets publics. Ah, dama lay wax ils ont ils ont parlé de tout. sauf ci yuqu ba. xam nga yuqu ba mooy lan. tout à fait nous avons falsifié le règlement intérieur. pardonnez-nous on va remettre le règlement intérieur en légalité. c'était c'était simple comme l'eau de roche. defuñu ko maintenant dañoo bëgg yóbbu ci débat bi ci euh, premier ministre comme dafa bayre bayre il faut taper sur lui il faut taper sur lui mais diggante euh, la la nomination du premier ministre ces députés de Benno là vous les avez une fois entendus wax ci projet public wax ci politique publique critiquer même le gouvernement ils n'ont pas eu le courage même de critiquer les actions du gouvernement parce que xam nga lu tax depuis le début le président de la République a mis en place des stratégies innovantes permettant au aux Sénégalais de s'approprier les projets publics Omar bindu fii euh, avec le journal sur soi les dettes dues aux semenciers mm. aux producteurs agricoles 2021 2022 2023 fay nañ ko wala fay ñu ko Omar couverture maladie universelle ah fay nañ ko wala fay ñu ko ah non xaaral ma expliquer la rek dama lay expliquer lan moo tax les députés de Benno marché marché marché une soixantaine de milliards boo xam ne nii da doon doon marché boo xam ne appel d'offre public ngeen def ko appel d'offre public waaw xam nga dama lay expliquer euh, Omar yow tu tu t'adresses à un chef d'entreprise ouais, qui a plus de quinze ans d'expérience dans les marchés dans la gestion entrepreneuriale xaaral ma expliquer la dama lay expliquer dans le code des marchés il y a dans les dans code des marchés publics il y a des dispositions qui permettent aux contractants de de de de lancer des marchés par gré à xam nga dafa am loo xam ne boo nee gré à gré rek dañuy foog ne tappale la non dafa am de marché yoo xam ne tu peux les lancer en procédure d'urgence vu l'opportunité dafa mel ni am na ay domaines de prédilection yoo xam ne comme l'armée comme la santé comme la souveraineté alimentaire lorsqu'il y des urgences le le contractant mun na euh, faire passer euh, le marché par gré à gré gré mooy da ngay ut quelques euh, euh, euh, soumissionnaires yi nga xam ne ce son des professionnels à la matière deux ou trois nga woo ñu xool ku ci nekk sa offre bi ci gën a baax mu mun ko def aussi bien en qualité en délai et avec une offre financière raisonnable nga jàllale ko xam nga loolu donc c'est c'est loolu depuis quinze ans on travaille là-dessus c'est pas compliqué xam nga lan moo gën a bon te loolu boo ko waxoon ma d'accord ci ak yow mooy marché bi jox nañ ko quelqu'un qui n'est pas du secteur jox nañ ko koo xam ne euh, xamul mbir par exemple marché euh, semence yi buñ ko joxoon daaw da ci am coow am parce qu'il n'est pas professionnel du secteur presse la xam média la am yaa ngi donc duñ ko jox ay ay ay ay intrants agricoles ay engrais ay semences ak yooyu donc nous nous sommes dans la logique de mettre en œuvre des politiques publiques structurantes en faveur des populations avec une équité xam nga nit ñi li ñuy jàpp mooy tout doit se rassembler à Dakar la des marchands ambulants parlant par-ci par-là Dakar n'est pas le Sénégal nous avons 14 régions nous avons 46 départements Fatima donc l'Assemblée nationale donc euh, Premier ministre bu fa waree dem c'est en toute légalité il faut que les les députés de bennon aient le courage quand même de dire au Sénégalais bah, qu'ils ont falsifié c'est tout on passe à autre chose. parce que l'urgence pour le premier euh, ministre. Euh, euh, kii laas xam laa jàpp tey jii yéen porox ndoll ngeen di wut rek yéen da ngeen bëgg a dissoudre assemblée nationale waa Benno tamit lenn rek moo leen intéressé mooy suñu mandat yi na bañ a jeex suñu mandat yi dañoo bëgg mu jeex ñoom leen rek moo leen intéressé mooy ñun nañu bañ a dissoudre assemblée nationale moo tax ñoom. instant bi waa Benno daal lenn moo leen intéressé mooy nan la ñuy def ba. teg benn euh, proposition de loi boo xam ne dinañ ko voter rapidement mu passer comme lettre à la poste empêcher au président de la république de pouvoir dissoudre loolu rek ngeen bëgg loolu seen problème yi yëpp loolu la de gis nga yii yëpp ay coow yi yëpp intéressé à l'aise parce que nous n'avons aucune responsabilité dans ce qui a été fait je m'explique en 30 secondes lii nga wax la dissolution de l'Assemblée nationale présentement qui fait l'actualité sëriñ mii xam na ne waa déglu ma expliqué sëriñ mii xam na ne la disposition constitutionnelle qui permet au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale après deux ans Omar kan moo ko introduire Diomaye Faye la wala Macky Sall la waaw léegi lan moo ci suñu responsabilité ñun c'est Macky Sall qui avait introduit une disposition constitutionnelle pour wax ni euh, après deux ans deux ans le président de la République a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée il avait ses raisons politiques que j'ignore waa léegi le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar est-ce que encore une fois duñu am un courage une honnêteté intellectuelle de dire au Sénégalais Serigne ne ko sunu patron politique le président de la République c'est lui qui avait introduit cette disposition constitutionnelle article 87. d'accord donc loolu lu suñu yoon ñun. d'accord très bien. c'était pas c'était pas une proposition de loi. c'était un projet de loi Fatima. donc assemblée bi ñu dissoudre ko ñu bañ koo dissoudre suñu yoon newu ci xam lu tax nous nous sommes minoritaires à l'Assemblée nationale dans notre projet bëgguñu sax une mais ñun mënuñoo décrier une chose. démb ak barki démb. je termine par ça démb ak barki démb et aujourd'hui pour dire le contraire xam nga lu tax parce que nous nous avons été toujours constants dans notre démarche c'est quoi Omar mooy euh, am une majorité mécanique mais le premier ministre Ousmane Sonko ba mu nekkee